ndax bind ñun dañoo wara juk mag Nyata yow xam na la ñett xamul suñu kër papa gu ndaw jaayuñu ko ba lek xaaliss bi da nga bëgg ñu toog fii rek di lem lemal ba coow daal suñu kaw man duma ko def man jug naa nag ci bu muy teel man nag vraiment kër laay wër su dee nag pare nga nga ñëw waxtaan seeg samay waajur yow lu moo tax man lu mu bëgg wax rek yow nga wax ko ah, tamit dañu dama lay sentir nag ndax man ablaye man dama xamul ban ñak fayda la gis ci man wala ban di la gis ci man wala bok dañ ne ko man damaa wayadi binta Ablaye war fu mu meuna joge ñew sama kër di ma waxi nobel parce que ban yi di wax ak yow ma ngeen ñaari jabar juróom la Amon na sept jabar mais ñëpp fassé na leen defa nga ne ablay ciune na ciune bu mel tolni bok ak bax ben bay ñew di la déclaré mbëgg ah mais cuuli la kay lool la def kon yow man li wax man man daal samay wax wul man lepp luma wax dal ngeen ne man lima wax amut eh je t'aime mais ton félicitations <laughs> mais toogaay bi dafa jekk li doy na waat yaa dégg parce que yaa ngi xool ci li may duggal mbambu du ray wer fi aduna la lu fi waxe bala mat wer ñu fàtte ko da duka rek